alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina wa nabina muhammadin wa ala wa ashaabi ajmain mbokk yi ñuy seetaan ci muslih tv ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci ñeenteelu borom kër ci ni ko xam-xamu fiqh usra jàngale waxoon nañu ne ñeenti sox juróomi soxnaa am waaye juróomi borom kër a am ku njëkk ki mooy mbonaat la dafa am critères yoo xam ne buñ ko gisee ci soxna wala ci boroom kër mbonaat lañ koy mandargale ñaareel bi moo di urs dafa am ay melokaan yoo xam ne buñ ko gisee ci góor walla ci jigéen dañ leen di wax ne ñoom ay urs lañu ñetteel bi moo di asamaku alqirshi te moo di gaynde géej mooy émission bi ñu mujjee def am na ay jikko yoo xam ne buñ ko gisee ci góor walla ci jigéen dañuy wax ne kii gaynde géej la ñu ñëw ci yéen ak ñeenteel bi ay lii ma ñuy wax si nii mooy ay melokaan yoo xam ne buñ ko gisee ci góor wala ñu gis ko ci jigéen dañuy wax ne kii de ñu ngi leen di dakkantale ak rab bi tudd ak animal bi tudd saalab te moo di njàppaan jigéenu saalab mooy kan waaye góoru saalab mooy kan ak a ñoo bari ci suñu société jigéenu saalab mooy njàppaan jigéen bu ñuy dakkantalee njàppaan xam ngeen ne jàpp njàppaan benn rab la boo xamante ne mu ngi dund ci jéer yi bon day doon soxna soo xamante ne soxna bu ñeme coono lay doon soxna bu ñeme soxna bu ñeme liggéey soxna soo xamante ne xiif du ko dàq ci kër soxna soo xamante ne muñkat la parce que lépp luy dund ci jéeri yomb na am melokaan yu mel nii waaye bokk na ci ay melokaanam moom jàppaan mooy ku sawar la nit ku sawar la liggéeyu kër gi yépp mun na ko def xale yi dina leen toppatoo dana foot amul problème passé amul problème euh, toppatoo jëkkëram amul problème bon nit ku sawar lay doon liggéeyam dara du ci tardé lépp mën na koo teg ci kaw temps gérer ba mot mais bokk na ci ay qualitéem ku muus lay doon soxna su muus lay doon soxna soo xamante ne muusaayam day muus ba feeñ ci ay bëtam baat bu mu wax xam na baat ba la mu tëkk ci kaw xam na baat ba la mu làq ci suuf foo natt xel bi rekk paase na ko loolu mooy tax nag soxna soosu mën na laa seyal mën na seyal góor benn at ñaari at ñetti at ñeenti at jural la benn doom ñaari doom ñetti doom ba ci ñeenti doom waaye doo mos xam yow ku góor ki ban secret moo tax mu di la sayal muus na muusaay boo xamante ne lu la ñépp bañal mën na la ko nangul muus na muusaay boo xamante ne lu la kenn mënalul mën na la ko mënal mën na la ko defal lépp loo xamante nga koy bañ ci sa néegu sëy dana ko moytu du la ko def mukk dana fexe tarbiyewu la dana fexe tarbiyewu la dab say bànneex jël alalam def ci yow lu la kenn nangul mu nangul la ko waaye danger toujours mu ngi ci li ko dugal ci néegu ci sa néegu sëy bii li tax mu di la seyal boo seyoon na moom ñaar fukki at doo ko mos doo ko mos xam toujours am na dossier yoo xamante ne def la koy tegal ci sa kanam ngay xam ne kii mooy diw nangam nangam mais am na lu mu denc loo xamante ne munoo muus munoo yéewu mënoo fexe bi xam ko ci moom am na loo xamante ne moom def ko réserver boppam ci biir néegu sëy bi te gis nga saay su eggee fa mu jëm saay su atteindre ay objectif am day génn ci sëy bi te buy génn dina tas sa kër te buy génn dina toj sa bopp loolu moo tax jigéenu saalab muy jigéenu njàppaan wala góoru njàppaan làmmiñ bi day neex mu mën a waxtaan yeewu muus du la def mukk lu mën a tax nga sikki sàkk ci moom du def mukk lu mën a tax nga xam fi mu jëm ak yow xam naa rekk bokk na ci yenn soxna yi nga xamante ne dañuy fexe tarbiyu la nangul la la kenn nanguwul ba nga am confiance bu dal ni bu mel ni ki jël sa kayitu kër def ko sa ci seen tur ngir li la defal jël sa oto def ko ci seeni tur ngir li la defal waaye dem sax ba jël say bien yépp def ko ci ay ci ngir lu mel parce que won na la ngor won na baax wala oyofte jël léppam jox la ko amul lañ lum la bañal te gis nga loolu yépp ak muusaay boobu loolu yépp dara taxu ko waaye pexe la yoo xamante ne dafa am lu muy wut ci néegu sëy ni mu amee ci góor ci jigéen noonu la amee ci góor am na góor goo xamante ne ba muy dugg si ci yow du def laa bëgg du def daa yërëm du diina du taar waaye am na benn secret boo xamante moom la gis ci yow am na benn objectif boo xam moom la gis ci yow moom moo tax mu ñëwoon la mbugeel indi kaddu yu rafet indi alalam investir indi lu ne mën naa waxal lu ne ci lu rafet nangul la lu ne moom ku góor gi waaye loo ko laaj fas yéene pour def ko mën la présenter fu ne wan la jikko bu rafet nangu la lu la kenn nangulul ma ne boo buggee sax boo ko tàcculee mu fecc amu ci benn problème boo ko doon boo ko doon xas sax mën na ko supporter loo ko def ci lu dakar lu ko nakari mën na ko supporter waaye na nga xam ne loolu muy seeg yow yépp am na benn secret boo xamante ne denc na ko ci biir néegu sëy bi saay su eggee ci objectif am rek mooy dina dagg say ba teg yoonam nga ne kii rek diwkat tas na sama aduna yàq na sama aduna yaakaaru ma woon ne diw li mu dund ak man ak lim ma doon def ak lim ma doon gëmloo yaakaar moom mii mën na maa def lu mel nii bon kooku mooy ki nga xamante ne mooy góoru saalab góoru saalab mooy góor boo xam ne loo yàgg-yàgg ak moom mënoo fexe ba egg ci xelam te loo dab dab bannee xam mënoo fexe fexe fexe fexe ba xam objectif yi nga xamante ne moo tax mu dugg ci sëy bi di sëy ak yow ci gàttal góoru saalab jigéenu saalab li mu bukk nga xam ci moom rekk ngay xam ci moom waaye am na ay dossier am na ay pexeem am na ay xalaatam am na ay jubluwaayam lu ngay sëkk sëkk sëkk ci wàllu bànneex du tax mukk na mu won la ay secret yooyu bon ci sumu émission yii di ñëw denn jëkkali ki nga xam ne mooy góoru saalab ak jigéenu saalab aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu كون وي سيدنا النبي كون وي